Efes saar man mi ñu tëj kaso ngir boroom bi nag maa ngi leen di dénk ngeen dund dundin wu yelloog wooteeb yàlla ngeen woyof toy te lewet di muñalante tey baalante ci mbëggeel te dem ba fu seen kàttan yem ngeen likkoo ci jàmm bay sàmm booloo gi leen xelum yàlla may jenn jëmm moo am menn xel ak jenn yaakaaru ëllëg ju wooteeb yàlla ëmb benn boroomi am genn ngëm ak benn seedeeb ngëm ci li ñu leen soob ci ndox te jenn yàllaa am di bàyyi ñépp mu tiim ñépp fees ñépp te dëkk ci ñépp waaye ku nekk ci nun ak mayam ni nu ko kirist séddalee loolo tax mbind mi ne yéeg na ba ca fa gën a kawe yóbbaale mbooloom noon mu bari mi mu noot tey séddale nit ñi ay may sunu waxee ne yéeg na lii moo ci génn daa jëkk a wàcc ba ca barab ya gën a suufe ki wàccoon moo yéegaat ba tiim asamaan yépp ngir fees lépp moo may ñii di ay ndawam ñii ay yonent ñii ay taskati xabaar bu baax bi ak ñeneen ñuy sàmm mbooloom ñi gëm te di ko jàngal maye na leen ngir ñu waajal gaay yàlla yu sell yi ñu mën a bey seeni sas ci taxawal mbooloom kirist di jëmam noonu nu mànkoo ci sunu ngëm ak ci xam doomu yàlla ji ba kere nuy egg ci nekk nit ku sotti te taxaw taxawaay bu dëppook matu kirist noonu dootunu ay gune yu njàngaleem nit ku ñëw di fàbbi ci seeni làqarci ak seeni pexe nu mel ni ay gaal yu duus yi ak ngelaw li di baaje waaye dinañu wax dëgg ëmb ko ci mbëggeel bay màgg ci fànn gu ne ci suñu bokk ci kirist mooy bopp te jëmm jépp ci moom lay dunde di jëmm yu ràbboo te déggoo ci bépp tenqoo te cër bu nekk di def warugaram noonu jëmm ji di yokk ak màgg ci biir mbëggeel maa ngi leen di wax lii nag te di ko dëggal ci kanamu borom bi bu leen dundati ni xeeti àddina yi ci seen xalaati neen ak seen xel mu lëndëm dañoo génn ci dundu yàlla ndax umpale gi ñu am ci moom ak li ñu ko tëjal seen xol seen xol dafa dër kiis ba ñu bàyyi li ko ciy topp seen nafsu di soobu ci bépp sobe te xer ci waaye du dundin woowu ngeen jàng ci kirist ndax yaakaar naa ni dégg ngeen kirist te jàng ngeen ci moom ba xam dëgg gi yéesu ëmb maanaam ngeen yulli seen jikko ju bon jigéen judduwaale te daan fes ci seen jëf te muy gën a yées moom ak i bëgg-bëggam yuy naxe kese te ngeen yees lu ci seen biir xel te soloo jikko ju bees ji yàlla sàkk ci njub ak sell yu dëggu kon nag bàyyi leen di fenn tey wax dëgg kenn ku nekk ci moroomam ndax ku nekk sa genn wàllu moroom nga ku mer bu mu jàll aw kaañ bu jant bi sowaale seen mer ba ngeen may seytaane bunt ku daan sàcc na ko dëddu te jublu ci liggéey lu baax ci ay loxoom ngir mën a dimbali ñi néew doole bu genn kàddu gu ñaaw génn ci seen gémmiñ waaye su wax egsee na ngeen wax lu rafet ba faj soxlaay seeni moroom te teg ñi leen di déglu ci yoonu yiw bu leen yëbba tiis xelu yàlla mu sell mi leen tàmpe ngir bésu goreel ba dëddu leen lépp luy wex mbaa tàng bopp luy mer mbaa coow lépp luy xeste mbaa coxor te ngeen baax ci seen diggante di laayante biir tey baalante ni leen yàlla baale ci turu kirist